713 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da te bu ñu nee góor ngóoraa tax. mbokk internet Sunugal ñu ngi leen di nuyu comme nag ni ñu koy ànd ak yéen ci bànneex rek noonu lañu koy ànd ak yéen ci naqar ñu ngi fii nag ci Médina li xew démb ak tey ku ne gis na ko. Euh, El Hadj Ousmane Diagne nekk xale bu nga xamante ni Sénégal yëpp ràññee nañu ko euh, xale yi bëgg ko lool nekkoon nag joueur daan football ñu bari ràññee ko ci métier bi nga xamante ni moom la daan def euh, ñii ñu ngi koy seedeel ci yaram ñii di ko seedeel ci mën liggéeyam ñii ci jomam ñii ci bëgg li muy def tey nag ñu ngi fi nga xamante ni moo di dëjëm fekk nañ nag ñu denc ba pare ñu koy ñaanal suñu borom yërëm ko xare ko àjjana waaye lii ñu gis ci image yi ak li ñu gis ci biir kër gi xel mën naa dal ndax mbokk yeeg am di jàmm yëpp teew nañ ki ñu toggal nag mooy yaayam du ñu def rek lu mooy bàyyi ko mu sànni ci ay kàddu yaay booy ñu ngi leen maa ngi leen di fay. tur bi naka la. man Filimatu Jaane laa tudd. yow yaay yaayu El Hadj. maa yaayam maa yaayam. El ñaata at la am. na 21 ans. 29 mhm. ñun dañoo toog rek euh, démb dégg ne génn na àdduna ndax euh, dafa tawatoon ndax tawat bi lu yàggoon la ci moom. Mhm. dëgg la déedéet yàggul tawat bi daal moom dafa demoon Nigéria ñëw euh, veille julli bi la ñëw bu mu ñëwee léegi samedi bi daal la ko daanal ñu yóbbu ko mais mu tane mu ñëw yëf bi rechuté waat ma yóbbuwaat ko lundi moo ko yóbbee lundi mercredi nag yàlla def lu gën. mooy démb waaw. feebar bi ndax lu yàgg la si moom. déedéet yàggul feebar bi samdi rek la ko dal samdi rek la ko dal samdi rek la doon jàmbat nee na bopp bi day metti yaram bi dafa tàng lool rek waaw lool rek la doon jàmbat mais après buñ ko yóbboo nag ñu ñu defal ko perfusion fièvre bi wàcc mais daal mu continuer mais démb daal la commencé naa nekk nekkatul daal. Mhm. mais do doxaale ak benn feebar ci yaramam. il était asthmatique mais depuis bu mu nekkee xale la waaw mais après asthme bi nag du ko wan daanal asthme bi moom doonu ko wan daanal. ay nawet rek daf koy daanal mel nii daa tisati mu tisati ko rek c'est c'est tout mais mosu ko daanal mu tëdd moom mosul tëdd sa élage élage mosul tëdd xanaa bu mu nekkee xale. mu nekkee xale daal doon na feebar feebar yu sew yi comme feebaru xale rek mais bu mu nekkee mag. Mm-hmm. Uh, ban métier ak ban métier la doon def à part football bi. El Hadj moom mu ngi doon jàng am na bac waaw mais football bi rek la bëggoon nag football bi rek moo nekkoon si xolam mu ne ma man damay tekki si football bi même bu mu jógee nii si seen menu fit foot bi bu mu ñëwee veyu tabaski dañu naroon demaat euh, coupe du monde Turquie mooy mois d'août bi. mu ñëw waa ne ma man damay dem Turquie ma ne ko waa yàlla na ko yàlla yeggal mu ne ma man champion la lion la lion la ma ne ko waa yàlla na la ko yàlla def mu ne waaw ma nag dem naa si avion yee lu ma doon rêvé am naa ko puisque dem naa ma ne ko waa kon nag yàlla na si yu bare topp waaye nag yàlla lii la dogal ñu sante ko yàlla rek. amul woon jabar amul woon doom. jabar amul doom yan kàddu nga ñu mën a seedal ci moom. xale bu baax xale bu ma bëgg xale bu am respect si mag xale bu am sutura si mag xale bu mun a maslaa musuma sonal bu mu juddoo ba léegi musuma sonal su doon foo ak xaritam yi sax magam sax moo koy nee ni yow da nga tàppet mais mu ne leen dafa am yërmande si ñëpp dafa am yërmande si man même bu mu demee ni euh, Nigéria luñ ko njëkk a jox man la ko viral sama orange money audio yaa ngi nii mu audio ma ne ma lii de lañ ma jox dañ ma ko jox rek ma viré la ko waaw di ma laaj jënd nga xar même jouru tabaski bi moo ma defaral sama yëpp mais il se sentait pas bien jouru tabaski bi tuuti daal di ma ne dama sonn maa ngi jóge voyage dama sonn kaay léegi man lii rek laay def ba ne ko déedéet moom di nga ñëw toj yàpp yëpp mais bi ma gisee daal mu insisté te dama ko yërëm ndax xale bu ma bëgg la man sama bopp maa doon toj yàpp puisque moom rek moo fi nekk góor magam dafa dem magam dem na Canada moom. ñoom ñaari góor rek ñaari góor la am ak ñaari jigéen. Hmm. waaye nag xale bu ma bëgg xale bu baax xale bu naroon a tekki teral ma la mais yàlla nii la ko bëggee maa ngi koy sante yàlla puisque tey lu ma gis ak démb lu ma gis dootuma jooy di ko ñaanal rek laay def incha allah. hôpital la wàññi ko. waaw euh, fële clinique Géejawaay yaay Aram Ndiaye fële amoo siis amoo siis waaw si benn clinique foofu laa ko yóbbu woon comme docteur boobu dama ko xamoon moo tax sama doom yëpp foofu la ñuy fajoo waaw. lan nga doon xaar ci moom boo ko xoolaan mu nekk xale am yërmande ci yow. Eh, dama ko doon xaar mu teral ma waaw yàlla lii la dogal nag yàlla moo bëgg yàlla moo ma ko joxoon moo ko jël ma santee ko yàlla. te moom dafa ñëwoon rek pour mission te lu ma gis démb ak tey doy na ma sëkk dootuma ko jooyati dama koy ñaanal rek. parce que xam naa ni man defar naa suma doom assisté naa ko yàlla may na ma xol boobu assisté naa ko sang naa ko defal naa ko yëpp sant yàlla lay def yàlla na ko yàlla xare àjjana rek lay ñaan. Mhm. xale bi ñëpp la bëgg ñëpp la bëgg teral waaye yàlla xëy na mission rek la ñëwoon ñu santee ko yàlla nag. Mhm. yan kàddu ngeen mujjee weccante. kàddu yi ñu mujjee weccante mooy mardi vay bu muy gaañu la ñu doon waxtaan ñuy waxtaan di waxtaan dañ doon waxtaan àdduna rek nii mu ne ma léegi nag tëddal na nga dallu sonn nga trop tëddal nga dallu ma ne ko wax maa ngi tëdd fayal lampe bi ma ne ko déedéet ñii dañuy ñëw à chaque instant di jël sa température ak sa kii noonu boobu la ñu mujjee déggante ni mais mercredi si suba bi sax doon nañu wax tuuti après nag si la noonu après 15 heures et quelque noonu rek yàlla jël ko mais suma loxo la ko jëlee waaw ndax dama ko doon raay dënn bi di ko raay di ko raay di ko raay ba yàlla jël ko. Mhm. nag yàlla. Mhm. ñu ngi lay masawu di la jaale. Mhm. Euh, yi nga seede ci moom rafet na. dëj bi nag nga yëg ko ak nga ñàkk ko yëg àdduna yëpp naqarul lañu ko. Facebook beeg statut yeeg amul fenn fooy dugg te doo ko fa gis. ñu ngi koy ñaanal tamit yàlla yërëm ko te xare ko àjjana waaw ñu bàyyi la nga tàggatoog tamit askan wi nga xamante ne métti lu nañ waaw kay maa maa ngi gërëm ñëpp vraiment ñëpp partagé nañ ma ko ak man loolu moo tax ñëpp muy plateau muy rëbës àdduna élage ñëpp ñëpp la xamoon ñëpp ñëpp ñoom ñëpp maa ngi gërëm ñëpp vraiment ñëpp taxaw nañ ko xaritam ya yaayam yi rakkam yi ñëpp ko taxaw vraiment man lu ma gis lu ma gis lii musuma ko gis maa ngi siy sant yàlla nag vraiment xam naa ne maa jur sama doom de mais doomu ñëpp la doomu ñëpp la macha allah waaw yal na ko yàlla xaree àjjana waaw kay. soxna si ñu ngi lay maa ngi leen di fay. yow lanu elaaj nga. man yaayam ñoo bokk ndey ak baay. lan nga doon xaar ci elaaj. ah elaaj de moom man affaire bi daal def ñu bett dañu bett daal man xaw ma nu may wax daal. parce que def ñu bett bett boo xam ne def ñu nax daal def ñu nax nii ba dem daal xaw ma daal lu may wax mais élage élage ñëpp la àdduna bi yëpp ñëpp la élage bëgg ñëpp élage foo tourné xale yi ndaw yi mag ñi man damay toog damay ne non c'est pas possible suma doom yi man moo doon suma doom bu góor parce que man aw ma doom bu góor ñeenti doom yi jigéen laa am man El Hadj daal mënuma ko wax daal mënuma wax mënuma wax mënuma wax daal yaayam daal wax na lu mu war a wax mais daal li ñuy def rek ñaanal ko rek te fu mu nekk nii man xam naa ni fu muy dem mu ngi si lu lu kii la xaw ma daal nu ma nu ma leen koy mën a waxee mais daal El daal nax nañu daal loolu rek laa koy mën a waxee ñëpp man ñu ma gis démb ak tey affaire bi daf ma jaaxal daal daf ma même suma doom yi nekk à l'étranger dañuy yéemu si yàlla koo koo wax du ko gëm koo koo wax ñu ne El Hadj moo gaañu ñu ne non non c'est pas El Hadj sunu koñ bi fii bitik yi magasin yi fi nekk koñ bi yëpp ñëpp a tëj ñaar tëkkeen ñëpp a tëj loolu musul am musul am fii sunu koñ bi fii xale bu tuuti wante xam nga yàlla lu mu tudd kenn mënu si mën a yàlla lu mu tudd si nit kenn mënu si dara Elhadji nag yaayam la nuroo parce que yaayam dafa baax mooy sunu caatu yaay moo yore suma yaay ba tey suma yaay mu ngi am cent et quelque temps mu ngi si néeg bi Elhadji mooy mooy mooy moo doon suma yaay Elhadji rek loo wax rek mu ne laaji loo wax rek mu ne laaji fu mu nekk nii man dama affaire bi daf ñu bett ba nga xam ne daal mooy sunu taa góor am na mag bu góor mais moom moo ñu féete woon daal Elhadji. démb suma kanam la dog suma kanam la dog démb dama egsi rek mu may xool suma kanam la dog mais def ñu nax def ñu nax de wante yàlla baax na yàlla daal moo ko indi woon yàlla moo ko yóbbu ñu ñaan yàlla yàlla xaral ko àddina waaw ñu ngi ñu ngi remercier Dakar yëpp tamit kenn desul amul ministère amul xale yi surtout xale yi Dakar yëpp a ñëw ñëpp ñëw ñëpp ba pare aussi ñu ngi remercier aussi média yi yéen yëpp depuis El Hadj gaañu démb ba léegi ñun dañuy yéemu si yàlla ñu ngi leen di remercier aussi di leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla fay yéen tamit si lu baax li ngeen def waaw loolu rek laa amoon lu may wax waaw di leen remercier bu baax a baax a baax ak ñu fi ñëw yëpp ñu ñëw ak ñu ñu ñëwul yëpp ñu ngi leen di ñaanal di leen remercier aussi waaw. waaw maa ngi leen di fay. yow lan ci El man ak yaayam ñoo màggandoo depuis bu nekkee xale ba léegi El suñu doom la ñun ñoo ko ngénte ñoo ko yar xale bu baax bu am sutura bëgg ay waajuram bëgg ay mbokkam bëgg ñu ñi ay yaayam xale boo xam ne bu yaram yaayam bu am yitte si nit bu bëgg nit ñun daal fu mu ne nii dañ koy ñaanal fu mu nekk yàlla na ko gënal fu mu jóge yal na yeggale ndawam sa àjjana firdawsi yal na rëccu lu mu doon yàggee fii si àdduna ñun tey lu ñu gis démb tey billax doy nañu te am nañ yaakaar ñun nan jooy suñu bopp kii lu mu am kilifa deena amu ko voilà kilifa si boppam autorité deena amu ko façon nit bu ne lañ fi gis façon personnalité bu ne président ñaari tali équipe nationale façon nit bu ne ñun dañu yéemu voilà nit yi jooy nan daanu nan lépp El Hadj moo ko liggéey liñ fi gis yëpp moo ko liggéey ñun liggéeyuñu ko nit ko loo liggéey rek moom ngay fekk yàlla na ko fa fekk te yàlla bu ko ca jiitu biir baa melam yàlla na ko yàlla may lépp lu mu amuloon fii yal na ko ko yàlla defal foofu ñu ngi koy ñaanal di ñaanal ay waajuram ñi yàlla bàyyi leen fi njaboot ji def yàlla may leen at ba ñu sut seen maamaati maam wasalaam kii ngeen di gis nag mooy maam maam ñu lay nuyu maa ngi lay ban yëg-yëg nga am sa sët tey mu génn àddina. naqar naqar loolu ma xarit la woon sama lépp su ma demee sax dimanche ma tase ma ba hasard mu ne ma maam jëm ma mu ne waaye am jël taxi mu ne bàyyi ma dox fekk sa dara soro mu ne taxi arrêt ma tax demal soo rek ñaanal ñu rek loolu rek ngay dégg daal ma demee mees ñaanal ñu rek dañu ñaanal rek loolu la soxla si yow man nag ma jur papaam am ay yaayam ñoo bokk baay maanaam papaam yaay maanaam ñoo bokk suñu yaay ñoo bokk ndey bay maa yar ne papaam maa ko yar mu nekk xale ba nu mu màggee mu takk jabat maa ko yar ba tey yëpp jeex na nu ñaan ki ñaanal rek yal na ko yàlla xaale àjjana kay kay bàkkaaram Souleymane Tidiane maa ko ñaanal yàlla may ko gudd woon mu yar ni des te soxna ne ñun ñu di soxna ñuy des yàlla yàlla mais ne dund àdduna bu sell la soxna si ñu ngi leen ñu ngi leen di fay bu baax baax tur bi man soxna Nafi laa tudd Nafi Cissé maag yaayam ñoo màggandoo ñoo ànd depuis xale ba léegi ñooy ànd El nag di xale bu yaru doom ju baax doom joo xam ne yaayam rek ñàkkul tey képp ku yaayam di àndal ak am di jàmm yeeg dëkkandoo yépp wane nañ ne ñoo ñàkk yaayam tey bi mu demee jàkk ji ba ñëw dafa ma xool ne ma dootuma jooy li ma gis fii dootuma jooy. bu doon taxaw rek bien vrai que feebar bi yàggul mais bu doon taxaw rek ak am yaay bu brave tàntam ji yaay ji ñëw xëy suba ba ngoon nekk moom ci clinique ba ñaat ñaat fan dafa dem trois jours mais jour bi muy dem muy mercredi bi tànt gi dafa ñëw foofu simb na fa def na fa lu ne muy tàntam gi toog yaay gi tam bi ma ñëwee dama ko fekk mu tiib doomam di nettoyer di sang di daw jënd garab lu ne mu ne tante ñëw ne da koy yóbbu médecin mi ne ko du ci dal man maa ko mujj ñaan sax ne ko bàyyi ko rek ñu ñu xaar yàlla ndek yoo xale bi mu ngi waajtaay mais li ma ci mën a wax daal mooy man day maa ngi rafet njort man de rafet naa njort ci xale bi yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam te am na loo xam ne mag dee na te amu ko ndax daf amul jalti jalti yëngatuwul raful leer na tàntam bii te bu sedd la dee macha allah man dama cee yem rek nag parce que man dama woo yaay ji pour ñëw yaay na ma ñu ngi clinique ma fekk leen ba ma demee fekk mu tëdd ku ku la ne kii day dem doo ko mu ànd ak tey ànd dal yaay ji tam dal ba yàlla suñu borom jóg la yàlla nag moo la dénk yàlla du sàcc kenn day dénkaan na rek bu la dénkee bu ko soxlaa rek jël ñu jox ko ko nag ak fierté di ñaan yàlla lépp lu mu bëggoon yéene waajuram yàlla na ko suñu borom defal ci ay frère am te bàyyi leen fi ñu fi des ñu yàgg fi lool ba yéene gi mu amoon ci waajuram mu def ko ci ci ci euh, frère yi def ko ci yaayam parce que yaay ju baraav la ñu am ñun da yaayam ñooy ànd depuis xale ba heure bi di am suñuy sët mais wallahi azim mun naa ne ñeme naa ko wax kenn du ma ci mere groupe bi ñuy ànd nii moo ñu gën dikku bon rafet xol mën a daw ci njaboot mën a daw ci njabootu jàmbur kon tey ji bu doon naqar ñun ñoo koy teg Fatoumata du am mus naqar ci àddina waaye yàlla lii du naqar sax nag dañ ko def rek te xam ne loolu la yàlla dogal man musuma wax télé te jooyu ma musuma wax rajo te jooy mais tey dama dëgërlu rek ndax El Hadj moo ko waral yàlla na ko yàlla yóbbu ci àjjana firdawsi yàlla na mottale ndawam aljana waaw fi mu gën a na ko gën a mu jógee. soxna si ñu leen ñu ngi lay fay. yow lan nga ci man bàjjanam la petite sœuru papaam. Mhm. ban yëg-yëg nga am tey ci sa biir xol. moi j'ai mal aujourd'hui ndax dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Elhadj yal na ko yàlla yërëm yal na àjjana yi doon këram ndax malaaka yéen maa ngi teeru ko teral ko. doom ju nga xam ne la doomu xol la woon euh, su ma yóbboo ne El Hadj dafa toppi papaam ndax pappam moo doon doomu xolam moo doon xaritam moo doon confident El Hadj à quelques jours ñuy jógee Nigéria on s'est parlé sur Messenger man ak moom lu may wax bàjjan ma koy ma koy tooñ mu ne ma ñaanal ma Maïssa Sadio Mané ce sont les propos qu'il a tenus envers moi man Maïssa Sadio Mané et d'ailleurs loolu la ko séddale sur Facebook muy xale bu baax xale bu bëgg ay bàjjanam xale bu am jom xale bu nga xam ne fu mu toog dañuy ree rek am na diine am na lislaam bëgg na mbokkam ñun néegu baayam dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal malaaka yërmande teeru ko teral ko Alaaji Diagne dafa sotti dafa sotti dafa sotti waaye nag fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jugee du ñu def lu dul ñaanal ko Mawlaana subhaanahu wa taala mi nga xam ne mooy aji yërmande mu jéggalal ñu ko yóbbul ñu ko àjjana firdaws foo mu tëdd ci sama wetu papa sama papa moo nekk entre moom ak papaam au cimetière j'étais là-bas ce matin mais li ma gis ci doomi aadama personnalité kilifa religieux génn na àdduna te amul nit ñu toll noonu kon nag yàlla bu yàlla tas sunu yaakaar ci moom ñu koy ñaanal yaayam nag dañ koy ñaanal gudd fan ak wér parce que Filimatu jàmbaar la Filimatu kenn mësu ko fekk ci ay doomam tey jii mu waroon a bànneexu doomam teral ko yàlla def lii mu def mboole li ko neex li ko naqari yëpp delloo suñu borom nan koy ñaanal ñi fi des yàlla teg loxo ci ñoom ñu ngi koy ñaanal moom ci wàllu boppam ñi ci des teral ko Filimatu yàlla na gudd fan jigéen ju baax la jigéen ju jàmbaare loolu la amoon ci lu may wax alhamdulilahi rabbil alamin am na nu yaakaar ci sunu doom yàlla bu yàlla tas yaakaar alhamdulilah. bi nga yëgee ne gaañu na nan la la def. ma ko yëgee dama j'étais très éveillée j'étais dans les nuages parce que à quelques jour il a parlé avec moi bien avant la tabaski depuis Nigéria alors moi j'étais même pas au courant de retour alors mu woo ma ne ma bàjjen waxtaan ak man daal lu bari yal na ko yàlla jéggal alors. à ma surprise démb ma toog sama kër ñu woo ma na ma El Hadj def na ko man leen non El Hadj waxuma woon loolu il m'avait pas promis ça ce qu'il m'avait promis c'est d'être mon Sadio Mané yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla yërëm alhamdulilahi rabbil alamin nan sant sunu borom rek nan jërëjëf ñu ngi lay ngi lay fay nan ngay seede si El Hadj. waaw ah, El Hadj dañu ciy seede rek xam nga li ñu ciy war a wax ñi ñëw wax nañ ko ndax ñii dañ koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla xare àjjana cat bañ ko jiitu ci bàmmeelam ndax ñun El Hadj ñun yaayam depuis ñu nekk xale ñoo fawandoo màggandoo ñoo jurandoo El Hadj defandoo lépp waaw yaayam ñun ak moom ak ñun ñëpp benn lañu waaye ñun lu ñu gis nii daf ñu doy. ba yéen ngeen ñëw xam nga yéen doo leen jóg si loo xam ne nii rek kon nga xam ne xale bi yàlla may na ko dañ koy ñaanal yàlla yàlla bu ko cat jiitu si bàmmeelam yaayam nit ku baax la nit nag loo góob rek moom ngay gal yaayam moo liggéey lii hélas tam ñëw doggale wàccu si dara waaye na xam nga bu yàlla soxlaa ñëpp ñàkk dañuy ñaanal ko yàlla rek ndax ñi lu ñu war a wax ñi ñëpp wax nañ ko dañuy jaaraat rek di wax rek fu ñu gis dina xam ne ñun ak yaayam démb la du tey hélas xam nga lu ñu doon wax meer ñaanal leen ma su ma tekkee dama leen di yóbbu yéen ñëpp benn benn màkk billaahi wala loolu lañu wax fu ma dajeeg moom mu ne préparé leen sama yéen maay seen Sadio Mané ñëw naa mais xam nga nag ndeysaan reebam rek la doon wax waaye yal na ko yàlla fekk loolu yëpp si la ñu ngi leen di gërëm yéen tam di leen sant jóg bi ngeen jóg ñëw nii yal na leen ko yàlla fay xam nga wéral leen barkeel seen liggéey yàlla ñu ñaan yàlla rek may ñu gudd fan ñun ñëpp ñu fekkee lépp jërëjëf kontaan na maam ñu ngi leen nuyu eh, maa lay fay soxna si lan nga ci El Hadj man yaay laaj ci moom ndax ñun ñi comme ni mu wax rek depuis ñu judd ba toll ni ñu toll ci kër gi la ñu juddoo ci kër gi la ñu màggee fii la ñu fawee ñoom El Hadj yëpp suñu loxo la ñu juddoo soxna si man nag li mu bëgg a wax yëpp sax ñii wax nañ ko man mënu ma wax ndax yaayu hélas dama koy ñaanal yàlla ndax tey bu doon sama sago re yéeneem ci yaayam mu mottali ko ndax bu brave ku mun a toppatoo njabootam kenn fekk ko ci ku sonn ci njabootam man nag day bu ma sañ sama wax daal moo ci bu ma sañoon tey képp ku nekk ndakaaru rek nga ñaanal ma sama hélas yàlla xare ko àjjana parce nit mënul wax lu kenn waxul fi mu nekk nii lépp lu nit bëgg a wax nit ñi wax nañ ko El ni mu mel nit mënula ko wax El Hadj baax na El yaru na El Hadj na nit ñi El ñaaru kàddu yaa ji démb ba tey li muy jooy nee na lu tax su ma waxee ak sama doom ji rek mu ne ma baal ma ak musul wax ak yaayam yaayam changé kanam bi rek mu ñëw ne ko eh, baal ma ak démb ba tey loolu la topp di wax nee na lu tax El Hadj doon ma baalu ma ne ko mbaaxam. yaruteem moo tax mu ne lu tax kon ma doon wax ak moom ba mu may baalu ñaanal leen sama élage yàlla na ko yàlla xare àjjana ñu ngi lay jaajëf man soox mu ngi noonu ñu koy ñaanal rek suñu borom yërëm ko xare ko àjjana jërë ngeen jëf